jàmbaar jaa ngi nii kii mooy jàmbaar gi nga xamante ni moom moo defar lal bi yàgg bi nga xamante ni daw na yàlla waaye lal bi ak dal bi ñu ci lal lal bi ay doom rek ci dëkk ay bañkat rek ci dëkk ñoo xamante ni fa ñu nekk bëgg Sénégal rek lañ ko yóbbu sanction yi jàmbaar yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw dara bu doon dawal bi mhm. Mhm. nga xam ne yaakaar naa fañ nekk tey jii kaso ba mhm. seen balance déedéet leen fa yëpp mooy fulla ak fayda ak fit ak buy ak mooy dugal kaso nga kaso di seen balance ndeysaan wax Macky Sall nag mu bàyyi ñii ci nii ba mbaa leen ci ndeysaan ca ca naa parce que ak jaay doole gi ak bu ndoxtaal gi ak dóor bi ak fekk bi ak lay dafa war a dakk dañu ko wax mooy mu Ousmane Sonko waaw mooy suñu plan A mooy suñu plan B Ousmane Sonko dong la Ousmane Sonko dong la Ousmane Sonko dong la du keneen Ousmane Sonko point